dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne leen di jox a raw. AGT news. da leen gis nañ nag émission balance li ciy xew jamono ji nekk na lu yéem lool sénégalais yi Pape Ndiaye am beneen posture bu jaaxal ñëpp. loolee moo tax sax moom ba émission ba jeexee am na lu mu ci jot a subir moo nekk nii ngeen di gis. yow yaa sabot émission bi yow Pape Ndiaye moom moo sabot émission bi yow yaa sabar suñu émission Cheikh Mbacke Gadiaga bi ñuy ñëw dañu ko doon wax yow yaa yow yaa yóbbu ay parents parents yi jóge Malika ñuy tëjee ñuy rëbisi yow nga manqué leen de respect yow mii yow Pape Ndiaye yaa def lépp yow yaa def lépp yow yaa def lépp yow Pape Ndiaye yow mii yaa sabar émission bi yow respecté woo parents yi respecté woo ñu ñëw ñu ñàpp seen i doom tëj leen jaay leen doole. sawdi émission bi yow yow yaa sawdi émission bi yow yaa sawdi émission bi Pape Moussa dafa war a leer leeral leen yéen seen màggal bi ñu ñëw yëgu leen ko kenn yëg na leer Sénégal yëpp ñu ngi jamono ji nag Pape Ndiaye taxawaay bi mu am jaaxal na ñëpp waral sénégalais yi ñu ci bëri di posé wu ay question lan moo xew ak waa ji naka la génnee prison lan moo changé ci diggante bi ba waral moom Pape njaay kenn xàmmeetu ko kenn ràññeetu ko doxalinam nekk loolu loo xam ne dafa tey xel la dañ ci dikk ci beneen jàngat gën koo yaatal la taxawaayu Pape Ndiaye jaaxal na askanu Sénégal AGT News